rom saar fukk nun ñi dëgër ci sunu ngëm war na noon nangu ñi seen ngëm néew te am ci lu ñuy sikki sàkka te bañ a yem ci wut sunu bànneex na ku nekk ci nun di wut lu neex moroomam ngir jariñ ko ba mu gëna dëgër ci ngëmam ndaxte kirist musula wut bànneexu boppam loolu la mi mbind mi wax ne lor yi ñu la saaga ci sama kaw lañu dal ndaxte lépp lu ñu waxoon ci mbind mi lu jiitu tey dañu ko tëraloon ngir ñu sàkku ci xamxam xamxam bu ñuy may fit ak muñ ak di feddali sunu yaakaar kon nag yàlla mi maye muñ ak fit ne leen may ngeen déggoo te nekk benn bu yelloog li kirist yeesu wone ba tax nu bokk benn xalaat ak benn baat ci màggal yàlla baayu yeesu kirist sunu boroom moo tax nangoonte leen bay màggal yàlla ni leen kirist nangoo lii lay wax kirist ñëw na liggéeyal yawut yi ngir wone kóllëreg yàlla ci matal dige yamu digoon maam ya ñëw na itam ngir ñi nekkul yawut mën a màggal yàlla ndax yërmandeem moo tax mbind mi ne dinaa la màggal tey tàgg sawtur ci kanamu xeet yépp mbind mi nee na it yéen xeeti àddina ñëw leen bànneexu ak xeet wi yàlla tànnal boppam mu dellooti ne sant leen borom bi yéen waa àddina te ñëw màggal ko yéen xeet yépp te it esayi wax na ne am na sëtu yeese buy ñëw dina yilif xeeti ñi dul yawut te ci moom lañuy wékk seen yaakaar kon yàlla mi maye yaakaar na def ci seen xol mbég mu réy ak jàmm ju yaa ci seen kaw ngëm ba ngeen am yaakaar ju mat sëkk ci doole xel mu sell mi mbokk yi wóor na ma ne baax ngeen ba fa mbaax mën a yem fees dell ak xam-xam ba mën a jàngalante mbir yàlla ci seen biir bu sama kàddu diisee nag ci bataaxal bii dara taxul lu dul bëgg a yeesal seen xalaat ndaxte yàlla ci kaw yiwam daf ma sas ma nekk jawriñu kirist yebal ma ci àddina ci xeeti ñi dul yawut liggéey bu sell laay def ngir yàlla ci xamle xabaaram bu baax bi ngir xeeti àddina sell ci dooley xel mu sell mi ba neex yàlla mel ni sarax suñu koy jébbal kon nag maa ngi bànneexu ci kirist yeesu ngir liggéey boobu ma yàlla dénk awma fitu wax leneen nag lu dul li kirist jëf jaalale ko ci man ngir xeeti àddina jébbalu ci moom jëf na jaarale ci samay wax ak samay jëf ci ay tegtal ak i kéemaan sukkandikoo ci doole xelu yàlla mi ba fi mu nekk nag yëgle naa fu nekk xabaaru kirist li dale ci yerusalem jaar ci gox yépp ba àgg diwaanu iliri sama yéene mooy xamle xabaaru turu kirist fa mu eggagul ndax bëgguma yeggale sasu keneen daloon li ma def nag dëppoo na ak li mbind mi wax ne ñi yëgagul mbiram dinañu ko yëg te ñi ko musal a dégg xam ko bëggoon naa ñëw seet si leen fekk ay teq-teq ñoo ma téye ba tey waaye nag léegi bay naa sama sas ci gox yii bu may dem Espagne nag bëgg naa fa jaar nuyu leen ndaxte ay at a ngi maa ngi am yéene ju tar ci ñëw seetsi leen bëgg na ma nekk ci seen biir ngir am bànneexu sotante ak yéen xalaat ab diir te it ngeen waajalal ma sama yoonu Espagne waaye nag fi mu nekk maa ngi dem nii Yerusalem ngir dimbali ji gaayi yàlla yu sell ya fa nekk ndaxte waa Masedowan ak waa Akayi ñi gëm fas nañu yéene sàkk ci seen alal yónnee ko ngir dimbali ñi néew doole ci gaay yàlla yu sell yi nekk Yerusalem yéene nañu ko te ci dëgg-dëgg bor la bu ñu war a fay ndaxte gannaaw ñi gëm ci Yerusalem seddoo nañu ak ñu dul yewut seen ngëm kon xeet yooyu itam war nañoo seddoo ak ñoom seen alal kon nag waxtu wu ma noppee ci liggéey boobu teg may gu tedd gii ci loxoy boroom dinaa dem Espagne te jaar fi yéen te wóor na ma ne bu ma agsee ci yéen dinaa indaale barkeeb kirist bu mat sëkk ginnaaw loolu mbokk yi maa ngi leen di ñaan ci turu sunu boroom yeesu kirist ak ci bëggante gi xelu yàlla mi def ci nun ngeen defal ma lii ànd leen ak man nu tuur sunu ñaq ci ñaan yàlla ñaanal leen ma ngir ma mucc ci ñi gëmul ci waa yudde te it gaayu yàlla yu sell yu nekk ci yerusalem nangu ndimbal li ma leen di yóbbul dolli ci yàlla may ma ma ñëw seetsi leen ak xol bu sedd nu booloo lu fa kanam yàlla ne yàlla boroom jàmm ànd ak yéen ñépp amiin